Rewmi 24 TV. dal leen ak jàmm mbokk yi mu mel ne lay raam ca ñag bala jëm te bu fa amee kër du fa génn benn yoon mooy jamono yi li gis ñu commencé di ko dicté di ko teg ci ndoddum ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ñu gën ci ràññi nag waa APR waaye rek mu mel ne kii ñuy wax Abdou Nguer Abdou Nguer di ko xamee ne kenn xamul ban façon nit la moom mii di Abdou Nguer ñu bari xamee ko rek ak dañuy wax ne topp ci ginnaaw nit la xam rek ñu koy jox muy def euh, di wax ak lala soob yow mi koy jox xaalis moom it Abdou Nguer nag xamoon nañ ko ci diggante bak Adji Sarr mu daat fay def lu ne Abdou Nguer tey jii moo ñëwaat yëkkatiwaat ay kàddu yu ñaaw daal di koy teg ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñu dégtal leen kàddu yi Abdou Nguer yi ngeen déglu ko. ak oustaz yi ko doon wanga wanga ak ñëpp bindoon kaamil ba jox ko ak moom Ousmane Sonko mi nga xam ne nee na nitu alxuraan la nee na ku ko dégg la ku ko jàngal jii képp ko doon ñaani jabar Ousmane Sonko ñëw seede say say ba waaw buñ la xasee jàpp ci wax dëgg mënatoo seede islam laa la wax diine borom xam-xam yaa may dégg buñ la xasee ne tiit ci wax dëgg yow xool boo nee weeru feeñ na sax xoolal kenn du xool dina nax waxe lii parce que loo wax dëgg dangaa wax dëgg beneen bi ci topp képp koo xam ne waxal na nit bu dul dëgg ba mu firnde wu su la baalu dañ war a fukk quatre-vingts juróom-ñett fukki yar lañ war a duma doomu la ci penc ma dumal waa kër nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy jàppale Ousmane Sonko tuddee ay doomu daara yu kenn xamul ñoom laay wax wax ci mbir mii Sénégal am nañ premier ministre boo xam ne matul seede muy lu doy waar am nañ premier ministre boo xam ne matul imam imam matatul seede ci lislaam kon li tax suñu borom waaw mi ngoog moom Abdoul Nguer Abdoul ngeer borom 10 millions yi Abdoul Nguer moom mi accusé woon rek ne jël na 10 millions jox ki nga xamante ne rek moom mooy ah, ki ñuy woowe Sidi Ahmed mbay Sidi Ahmed mbay ñu bari xam ko ak Adji Sarr kon loolu la ah, ki nga xamante ne moom mooy Abdoul Nguer mi wax Abdoul Nguer nag ñu bari rek ràññee ko depuis commencement ba fin mu yëkk ci kàddu yi ñaaw a ñaaw a di ko wax ci ki nga xamante ne Ousmane Sonko moom mii di Abdoul Nguer nga xamante ne ñu bari ci réew mi respecté wuñ ko nawloo woon ko ngir jëfam ak topp ci ginnaaw nit lu ñu ko defloo mu def ko ngir alul àdduna moom rek moo mën a taxaw di xas as gor su set wecci kuñ ki yàlla baaxal muy président Ousmane Sonko ak naataangoom bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu doon loo xam ñu bari rek ñi ngi ñaawlu kàddu yi Abdou Nguer yi nga xamante ne saa su ne ma ngi koy yëkkati ju wax na rek arrêté nag dafa jot ndax kat ñii lu ñu leen may dafa ëpp mu mel ne ba Ousmane Sonko bi ba léegi rek dañoo mel ne ku jëfaru di waxta la ñuy wax xamuñu ci dara moom la ñuy dëkkee saa su ne kon waxi Abdou Nguer yi bari na ñoo xam ne tuusee na leen lool ba ñu bari rek ña ngay sàkku rek ñu daal di nag jublu ci lii ndax kat lii ku ne xam na ne kenn du ko bàyyi mu ku ne xam na ne dundam gi ci bari ci askanu Sénégal la ko def dafa xeexal réewam waaye wane loxo yi set waaye it wane diine ak gëm-gëm ak ngëm ak jubal ak jubbanti ba ñu bari rek fekk si ko ci bile procès kon nit ku tekkiwul dara bu toogee di ko xas suba ak ngoon guddeeg ba ci dara du ko ci fekk loole kon warees na ñu daal ci def ay jàngaat taxaw teg leen ay daan ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon Ousmane Sonko dippi ay at mu dem ba yàlla jox ko ndombal tànk tey ji mu dirisé réew mi nekk ca kaw ñu gën a ci ay tànkam di ko góor ak di ko sosal di ko wax wax yu ñaaw mu mel ne loolee du dëgg benn yoon ndax xet liy raam ca ñag ba la jëm bu fa jëmee dina fa am kër te bu fa amee kër dootu fa génn mu mel ne kon Ousmane Sonko ak li nga xamante ne rek moom mooy président Bassirou Diomaye kon lii nga xamante ne rek ñoom ñooy waa APR commencé di nga xamante di leen ko di leen ko diaboliser mu mel ne loolee yàgg na ci ñoom lool waaye ñu bari lañ ñuy sàkku nag mooy ñu arrêté ndax kat fi mu toll nii nag dafa doy ndax di jàpp di ko sosal di ko ba yàlla jël ko teg ko ca kaw nga ne rek du fi amee di wëlbati ko dégg gën a sosal mun na ñàkk ci réewum Sénégal rawatina ku toll Ousmane Sonko.